rapid transit naroon tàmbalee daw ci altine ji wante li nu mel daldi nañ ko ajandi ba mercredi bii di ñëw wante rek mu mel ni bari na lool sénégalais yu rafetlu ni réewum senegal bokkee ci réew yi am bus rapid transit ndaxte jàpp nañ ni luy gaawal dem beeg dikk bi la. dund naa bitim réew nekk na États-Unis pendant au moins vingt six ans maa ngi fay dund ak suma njaboot donc tu vois xam naa lan mooy njëriñu transport bu gaaw te foofu lépp transport bi dafa gaaw le le bus tout va vite donc fii tamit suñ ko amee sant yàlla quoi c'est un progrès la l'avant quoi. dama ñëw nii pour jël ko pour am sus lu may rek la ji port mën na naa jël kii ba Petersen ma continuer dem parce que jege na Petersen ak port jege na quoi distance boobu moom soriwul mun naa ko dox. ci biir daal di rafet lool teg si gaawaayam dina tax ba kenn dootul tardé fi mu jëm wante rek mu mel ni jafe-jafe bi mooy si njëg lii. tarif bi 500 300 mais dégg naa ñu ne 400 mais baax na ba tey ba 500 baax na. Le tarif, c'est un peu, c'est un cher pour la distance. Euh, enfin, moi, je m'arrête à Yacine Thiandoum. Pour le moment, je vais pas encore en ville. Mais c'est un peu chaud. 400 500 loolu du dara parce que boo seetloo par exemple bu njëkk ba da ngay jël fii oto dem wàcc fële wàccaat jëlaat beneen oto wàccaat jëlaat beneen oto ba àgg Dakar alors que maintenant tu vas directement sur Dakar même bu dee 500 francs jar na ko quoi man je vois. embouteillage yu BRT bi jur loolu tamit daal di jur coow bu mag a mag chauffeurs yi ñoom. bokk na ci lu ñuy naqarlu BRT bi ñun maanaam moom fi muy daw moom amul problème mais ñun tëli yi ñuy defal moo xaw a xat ñun ñun safoor yi maanaam ab sere sax bu la juutoo pour nga doubler ko wala dara loolu moom wax dëgg yàlla buñ seen daal ñu yokkoo ñu xaw ñu yokkoo ñu tëli bi mu nekk deux voies ko mais benn voie bi mu nekk moo tax moom ñun moom côté boobu moom daf ñuy kii lu bare ko bañ demee bay defar BRT dañ war na yàqal tool yi yëpp mu yaaw euh, taximan bi gis boppam jakartaman bi gis boppam borom oto bagage gis boppam mën a gis boppam mais dañ ko def ne kenn ku ne kenn rek mooy gis boppam mooy BRT bi ay weer a ngi nii ñu nekk di essayer bus rapide transit bi wante rek mu mel nii bëri na sénégalais yu koy xaar ngir rek ñu tàmbali koo jël